kii bu mu jokkoo bi Modou Mboup ñu ngi lay nuyu. Ah, asalaamaaleykum leen di fay. Euh, yaa di secrétaire général mouvement des entreprises du Sénégal euh, édition 2022 forum international des entreprises francophones tey la tàmbali fii ci Ndakaaru euh, ndax mun nga ñoo wax mooy FIEF. d'abord maa leen di nuyu aussi di leen souhaiter en tout une bonne journée. effectivement tey ci Dakar la ñuy door benn ndaje ndaje bu am solo euh, boo xam ne ki ko organisé mooy MEDES ndaje mi nag ndaje forum international entreprise francophone la ndax comme ni ñu ko xamee euh, francophonie dafa am benn organisation mbootaay bu ñu tuddee OIF organisation internationale de la francophonie Euh, léegi nag euh, li ñu gën a xam ci OIF boobu ci temps yi weesu mooy dañ doon toppatoo question caada euh, civilisation française langue française ay question politique ay question de la à la démocratie de gouvernance ñu ne woon ñu léegi nag loolu yëpp baax na waaye nag dañ ci yokk aspect économique mm-hmm. ndax économie moom moo yore lépp donc nañ fexe aussi bi nga nga xam ne mooy entreprise nekk pays pays francophone yi mën a xool nu ñu mën a dajaloo ñoom itam euh, jéem a nekk benn pour gën a suqale pays francophone yi donc yi nga xam ne ñoo bokk ci OIF ndax niñ ko xamee addina bi léegi euh, maanaam mbootaayu mag yi rek ñoo jàll grand ensemble yi rek nekk nii ñoom ñooy mën a développer te aussi di Euh, am ay succès ci li ñuy def suñu xoolee fi mu nekk nii fépp ñu organisé wu. Mm-hmm. Euh, États-Unis euh, moo ko Mexique dañoo créé seen seen seen groupe Amérique latine Mercosur créé groupe am Union européenne di di regroupé wu donc fépp léegi ñu xam ne mbooloo mooy doole donc pays francophones yi aussi war ñoo des gannaaw ci ci loolu moo tax entreprise. nekk ci pays francophone yi at yële weesu ñu dajaloo ne donc léegi ñun tam nañ créé mbootaay goo xam ne dañuy jàppalante dimbalante sottante xalaat mun a sax bool suñu alal pour liggéey ndax suñu pays développé loolu moo sabab juddug en fait à l'époque li ñu doon wooyee li ñuy wooyee ba léegi sax groupement patronat francophone maanaam moom mooy patron yi nekk ci pays francophone yi dañoo def seen seen seen seen mbootaay pour seen entreprise yi mën di waxtaan mën di jokkoo mën di boole seen i seen xam-xam ak seen alal pour développer francophonie donc loolu mooy euh, solo euh, fief bi. bi hmm. nga xam ne tey ci Ndakaaru lay tàmbali pour euh, en tout cas seet nu ñu mën a dooleele ci pays francophonie koom-koom bi ak koom-koomu nit ñi aussi. d'accord bi kan moo ko organisé. forum bi nag MEDES moo ko organisé ci turu FIEF dañu tànn euh, MEDES fii Sénégal daal di koy dénk mu organiser forum bi ndaxte comme ni nga xam ne forum bi actuellement président Mbagnick Diop moom mooy vice président forum bi mooy mooy vice président GPF. Hmm. groupement partenariat franco mooy vice président bi. comme nag dafa def liggéey bu mucc ayib ci kaw ci boppu GPF ñëpp naw liggéeyam naw taxawaayam naw fula bi ci wone donc ñu ne yow yaa ñu doy pour nga ñu dénk la organisation xeex bi nga xam ne moom la ñuy séntu mais bu bi donc loolu moo tax euh, moo sabab nekk ni MERS di ko di ko organiser ay nattaangoo président ba ñu Diop ñoom ñoo ko wóolu daal koy dénk organisation réunion boobu Euh, forom bi loo leen ci jublu lan ngeen ciy wut. xam nga àddina bi ñu nekk forom bi en fait forum la boo xam ne léegi at mu nekk dañ ko organiser objectif général bi liñ ci wut moom mooy fexe ba dëgëral volet économique francophonie parce que pays francophonie dañuy daje dañuy défendre civilisation française culture euh, du français dañuy promouvoir euh, principe démocratique ci pays francophone yi dañuy jéem a promouvoir bonne gouvernance ci pays francophone di def aussi ay activité politique ci pays francophone yi waaye nag dañ ne loolu yëpp baax na waaye nañ ci def benn volet économique ndax fi mu nekk nii xam nañ ne économie moom moo yoore lépp te économie moo tax euh, koom-koom di jëm kanam moo tax population yi di am liggéey moo tax aussi ñu mën a génn ci ndóol donc ñu ne léegi ah fokk ñu def ci volet économique bi donc loolu moo sabab en fait création fief bi effectivement boobu ba léegi pays francophone yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dajaloo sottante xalaat sottante expérience léegi laa ñi boole seen alal def ay joint venture def partenariat pour mun a suqali économie bi nga xam ne moo concerné les pays de l'OIF e les mm. pays du GPF. Mm. Euh, Modou Mboup ren mooy euh, ñetteelu édition bi nga xam ne yéen a koy euh, organiser ren lan mooy doon particularité bi. xam nga fief ren bi dafa am ci moment boo xam ne dafa particulier d'abord génnaguñ entièrement ci Covid bi te ñëpp xam nañ ne Covid bi amoon na amoon na impact amoon na jeexital bu méttee métti ci entreprise yi jeexagul sax mu am guerre Ukraine bi guerre bi nga xam ne aussi dafa am njeexital conséquence daanaka ci pays yëpp njeexital bi ci gën a fës nag mooy d'abord cri de crise énergétique donc njëgu énergie dafa gën a euh, yokk pétrole bi prix bi yokk na gaz bi pratiquement les prix am multiplié par trente te ñëpp xam nañ ne euh, énergie moom mooy euh, sangu économie en fait l'économie deretam mooy énergie ndax économie dul énergie bu ñu yokk xaalis ak xam-xam pour créer ay produits loolu mooy économie jël énergie rek yokk ci xam-xam savoir-faire travail def ci alal pour créer économie donc économie li direct mel ci nit noonu la énergie mel économie donc su amee crise économique énergétique fokk mu feeñ ci ci ci lépp moo tax fi nekk ni dëkk ak dëkk yëpp ñu ngi jooy inflation njëg njëg yëpp yokk njëg yëpp yokku na ndax su njëgu énergie yokkee rek njëg yëpp day yokk njëg yëpp yokku na ñi nga xam ne dañoo ne doole ñu ngi gën a ñu ngi gën a sonn entreprise yi doon jaay mënatu ñoo jaay ñu bari ñu ngi fermé donc loolu dafa nekk défi hmm. boo xam ne fu mu nekk nii moo taxaw suñu kanam fekk fi nekk défi Covid bi yooyu ñaar défi fekk fi aussi défi environnement ma climat bi fekk fi defi sanitaire feebar yi fekk fi defi défi alimentaire donc yooyu yëpp ay jafe-jafe yoo xam ne benn pays moom dong su beroo du ci mën dara waaye nag suñu booloo mën nañoo fexe ba daan loolu wala su fekkee aussi daanuñu ko ñu mën a euh, résister ba duñu faagaagal donc loolu euh, thème ren bi donc moom mooy en fait euh, euh, les conditions de la résilience donc face aux différentes crises maanaam pays francophones yi nu ñu mën a euh, dëgëre nu ñuy mën a fexe ba du ñu duñu ñu sonn du ñu loof donc devant crise yooyu donc mm-hmm. en fait loolu mooy mooy tam mooy tam mooy tam temu ren bi mm-hmm. thématique clé yi lan la nar a doon ren en fait thématique la nga xam ne moom la ñu war discuter moom mooy d'abord pays francophones ak seeni entreprise ni ñu war a taxawee pour résister ak chocu crise yooyu ma cité léegi crise yaa fi ku amul pexe yu wóor ko amul taxawaay bu dëgër yooyu crise da lay faagaagal donc ñun ni ñu mën a pexe ba suñ taxawaay demee noo xam ne crise yooyu duñu faagaagal konnal duñu ñàkkloo trop duñu duñ pauvreté donc loolu mooy thème principal xool nag maintenant concrètement yan jéego la ñu mën a def pour gën a dëgëral suñu suñu taxawaay. Hmm. nu ñu mën a def ba ku nekk li nga xam nga xam la ko sa moroom hmm. li nga man nga ànd sa morom. alal ji nga am nga boole ko ak ñu bëgg ànd yow pour ngeen bokk liggéey pour euh, nga xam ne crise bi di crise multiforme attaqué adduna bi yëpp ñëpp di wut solution donc ñun tam ñu mën a am solution boo xam ne incha allah crise bi dina ñëw ba passé ak jàmm te mën naa am coono bi ñu doon ragal duñ ko duñ ko am. FIEF mhm. euh, nag euh, donc da ngeen ko co-organiser ak groupement patronat francophone ak MEDES est-ce que lool ah. day firndeel euh, place su patronat sénégalais ci espace francophone bi. waaw xam nga suñu tànnee Sénégal tànn MEDES loolu day nekk mandarga kóolute maanaam pays yooyu dañoo wóolu Sénégal. wóolu aussi patronat sénégalais ndax gis nañ ni ñu taxawee ci Covid bi ni ñu taxawee ba léegi ba Sénégal économie am suuxul comme ni ko doon ragalee ñu wóolu aussi président Mbagnick Diop mi nga xam ne mooy président MEDES di vice président euh, GPF ndax gis nañ taxawaayam gis nañ euh, fullaam gis nañ engagement am euh, ci côté entreprise yëpp nekk ci pays francophone yi donc bu taxawaay ak boobu liggéey ñu ràññee xàmmee ràññee ko ci man ci président ba ñu jóg moo tax ñu ne ah Sénégal kat def gàcce ngalaama kon nag nañ ko sargal ni ko sargal nag mooy dénk ko mu organiser eh, donc euh, fief ci Ndakaaru su ko defee mu nekk euh, consécration ci Sénégal ñu xam ne liggéeyam naw nañ ko nekk aussi consécration ci patronat sénégalais yoo xam ne patron sénégalais kat vraiment euh, def nañ seen liggéey wane nañ patriotisme ak engagement devant les crises wane aussi seen euh, wolute ci président Mbagnick Diop mi nga xam ne moom mooy vice président donc euh, GPF te guddeeg bëccëg mi ngi xalaat di dox di liggéey ci li dëgëral GPF ak aussi lu dëgëral suñu entreprise nekk ci pays mm-hmm. francophone yi. Mm-hmm. loolu daal moo tax ñu sant Sénégal pour mu organiser ren bi mm-hmm. édition FIEF. Euh, léegi lan moo tax yéen ngeen tàmmu ci Dakar. xam nga nekk dañ tàmmu Dakar d'abord Dakar dafay dëkk boo xam ne euh, dañ ko ràññee ci ci mën ganam ndax ko wax Sénégal wax teraanga d'ailleurs dañ naan Sénégal terre la teraanga donc loolu muy muy muy lu siiw. deuxièmement euh, aussi ñu xam ne euh, Dakar dëkk la boo xam ne euh, sénégalais yi dañoo nekk nit ñu accueillant nekk nitu nitu jàmm nekk aussi ñu fonk seen bopp tànn Dakar quand même Dakar aussi mooy capitale Sénégal te Sénégal nag mun naa am réew mu ndaw la ci dimension réew mu ndaw ci population waaye nag réew mu mag la ci taarix réew mu mag la it ci histoire am réew mu mag la ci taxawaayam fi mu nekk nii dans le concert des nations loolu lépp suñ ko boole nag loolu moo tax euh, GPF groupement pour Sénégal francophone xam na kat dakaar mën na te yelloo na te dayoo mit egg na foo xam ne war na mën a organiser donc euh, forum international des entreprises francophones. Mm-hmm. Euh, Modou Mboup merci fi la yem ak yow ci waxtaan wi. jërëjëf. merci di fàttali yaa di secretaire général euh, mouvement des entreprises du Sénégal ñu gën ko xam ci MEDES. merci beaucoup